jërë ngeen jëf mbokk internet sans limite seen point comme dal nag jàmm ci seen euh, chaîne préférée di am mbégte kontaante di leen ci retrouver euh, saa yu nekk tey nag ñu am mbégte jàkkaarloo ki nga xamante ne moom mooy monsieur Soya Diagne nekk chef d' chef d' entrepreneur ak njiital ki nga xamante ak njiital le Dakar waa 221 en tout cas bu nekk un homme à multiple casquette fas yéene waxtaan ak moom nag lu ñeel wàllug affaire Babacar Ngom ak waa Ndingler waaye itam rapport yi nga xamante ne ni waa IGE fësal nañu ko monsieur Diagne ñu ngi lay jaajëfal ci disponibilité bi ak dalal bi nga dalal. Euh, maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen euh, gërëm ci invitation bi. Euh, di fas yéene waxtaan ak seeni mbokku internautes yu sans euh, com noonu la mais homme à multiple casquette bi moom dindi ko <laughs> benn casquette moo fi nekk <laughs> voilà. on a noté que vous étiez chef d'entreprise, entrepreneur, njiitu Dakar waa oui mais bon loolu yëpp c'est dans l'entrepreneuriat <laughs> merci beaucoup monsieur Diagne ñu gis ne ci ay jëmi jamono euh, porté nga woon benn combat en faveur des paysans de Ndingler xëy na ci ay ci benn vidéo en tout cas bi ñu gisoon ñu gis itam ne defaat nga beneen vidéo daal di bu ñu ne wax ne xaw a changé discours bi ba sax am na ñu ne da nga def euh, changement de position wala boog sa discours dafa changé mais ñu bëggoon a xam euh, déjà lan moo changé ci diggante bi ba tax. nga reconsidérer waat peut-être sa décision par rapport ak euh, problème bi nga xamante ni moom moo am ci diggante Babacar Ngom ak euh, waa Nengue. merci soxna Mariama euh, ci bi nga ma permettre à travers sa question boobu j'espère que bés ni ki tey dinañu évacuer li nga xamante ni mooy équivoque ou interprétation boobu nga xamante ni nit ñi ñu ngi koy def. ci sama position par rapport ak li ñuy tuddee le problème de Ndingler Euh, effectivement, euh, j'entends beaucoup de gens parler de changement de discours, changement de position. Euh, mais, Mansam Walubopo, il m'arrive, euh, je ne vous le cache pas, de, de, me, de me, réveiller les nuits. Euh, Toc, ni mais exactement, qu'est-ce qui a changé Pourquoi les gens disent que j'ai changé de position ou j'ai changé de discours par rapport à cette histoire de l'anglais Euh, pour man je ne vois pas le changement de discours ni le changement de position euh, li am lu lu yomb la euh, man toog naa gis vidéo bu ñu wan benn mag boo xamante ni war na tolloo ay at ak suma waajur bu góor su doon dund ma gis ko mu wax ci ba jooy li mu ci wax mooy que ni seeni suuf yi nga xamante ni moom la ñu yor di ko bay dafa am waa ju jóge dakaar Euh, tudd Babacar Ngom ñëw fa euh, proposer leen deux millions euh, pour nangu suuf si ñoom ñu bañ mu jaar ci suuf dem lijjanti ay kayit ba am baay ak maire bi wëlbatiku dem topp kayit googu ba am tiitre foncier ñëw génne leen ci suuf soosu yàqate seeni semence loolu nag ñu taxaw di ñaan askanu Sénégal ku leen ci mën a dimbali bi ma gisee vidéo boobu su ma xol tooy j'avoue que j'ai pas fermé l'œil j'ai euh, pris mon téléphone moo euh, ki nga xamante ni ci conférence de presse boobu ma gis ci vidéo bi euh, mi ngi fa woon toog te ma xam ko muy Bassirou Diomaye fay bu Pastef je l'ai appelé ni ko man Bassirou dama bëggoon a dem Ndingler moo fa bëggoon dem pour xam exactement ce qui s'est passé mu jox ma ñetti numéro téléphone mu jox ma numéro téléphone ki nga xamante ni moo yore jeunes yi Mbaye Diouf jox ma numéro téléphone ka nga xamante ni moo fa nekkoon ancien jaraaf muy Ablaye John jox ma numéro téléphone actuel chef de village bi di doom ci Ablaye jon bi ma joxee numéro yi ma xëy suba taal suma oto dem Ndingler laata may dem woote naa leen ni leen bu subaa dinaa fa ñëw ba may ñëw aussi ma fekk ñu teeru ma euh, teeru boo xamante ni yaakaar naa ni réserver luñ ko lu dul kilifa ci réew mu doon lu sedd sama xol lool aussi maa ngi ñëw fekk salle bi fees dell ñu toog ma jël suma téléphone taal ko def ko en live et je les ai demandé lan moo xew effectivement ñoom ñu dellu si ci li nga xamante ni moom la ñu waxoon ci vidéo boobu mais comme man euh, dama di nit bu nga xamante ni je suis trop émotionnel et trop émotif aussi. Euh, c'est vrai que j'ai pas de demi-mesure ci li may def je pense que ñi nga xamante ni ñu ngi may suivre ci internet bi de par mes engagements et ou mes prises de position ils savent exactement su fekkee ni yàlla rek moo leen tax di wax que su ma xesee ba jël position du ma ci dellu ginnaaw duma ci changer duma ma ci varier aussi alors ma jël suma téléphone j'ai fait un live j'ai demandé ñu wax ma wax ma ni ma seen suuf moo nekkoon fii fii lañ doon bay dañu jékki-jékki ñu jëlee leen fa ma ni leen nañ leen dem ñu xool fan la tool yi nekk ñu jóg ànd ak quelques délégation dem bi ñu ñëwee ba jub tool yi dafa am benn tranchée buñ defoon ñu taxaw ci tranchée yi ñu ne tool yaa ngi nee mais man euh, li ma njëkk éve éveillé suma suma xel pour que je me pose des questions, c'est que quand on quittait Nengler pour ah. aller à Chitoli, on a parcouru une distance. une distance de à peu près 6 et quelques kilomètres. Les documents attestent que c'est 6,12 kilomètres. Mais je n'ai pas mesuré pour dire avec exactitude, exactitude que c'est ça. Donc on y est allé. bi ma ñëwee loolu man ma ni sama xel et j'aurais même posé la question aux jeunes euh, bi nga xamante ni moom laa àndaloon muy mbay Diouf j'aurais posé la question ni ko mais Mbaye Diouf diggante fii si village bi ak fi tool yi nekk àll bi fi nekk nii yëpp kan moo ko moom mu ne ma àll bi yëpp day àll ci àll nengaleer yi la waaye foofu laal rek toolu jàmbur la ah bon mu ne ma waaw ma ne ko ah mbay lii yaatu na de pour nekk toolu jàmbur mu ne ma si toolu jàmbur la bi ñu demee aussi mënuñu woon accéder parce que y avait des gendarmes qui étaient aux pour di garder foofu après ci lañ dellu si waat ba tey benn version la am mooy version waa Ndingler et j'ai dit au vieux Ablaye John bu soobee yàlla sunu borom xeex bi doo ci wéet man de su fekkee ni lii nga wax ni ci jaay doole kese lañ la bëgg a nangoo seen suuf si man dinaa ko ànd ak yéen xeex ko foofu la dimanche bi foofu la ñu yam man bi ma génnee Ndingler ñibbiwuma parce que c'est une zone composée de quinze villages j'ai fait le tour des villages j'ai demandé parce que il me fallait avoir l'historique de lii ñuy wax ni tey tool bi mi ngi dend ak plan REVA si tu des recherches par rapport ak plan REVA bi nga xamante ni dañ ko doon créer uniquement parce que y avait euh, beaucoup de jeunes yi nga xamante ni dañ doon dem ci Barça wala Barsaq c'est ce qui avait poussé au président Abdoulaye Wade mu créer plan REVA mais dans les zones les plus affectées dans les zones yi nga xamante ni fa la jeunes yi di gën a jóge pour di dem ci ci ci àll bi ci ci gaal yi donc bi ma defee suma recherche foofu je me suis rendu compte il y problème avec trois types de sénégalais yoo xamante ni ñoo benn problème bi ci njëkk mooy waa Ndingler nee nañ suuf si ñoo ko moom ñoom ñoo fi doon bay bi ci topp mooy waa Jilaax nee nañ suuf si ñoom ñoo ko moom ñoo ko joxe beneen bi ci topp mooy le promoteur bi nga xamante ni nee na maa ko moom parce que état du Sénégal moo ma jox titre foncier. alors là c'est un problème moom mi nga xamante ni dem ñëw naa ba gis condition yi waa Ndingler nekkoon di ko dundee ki toog ni la man dama xiif te lii rek laa yaakaar pour dund parce que man su may bay bayuma pour jaay bayuma pour transformer damay bay pour dundee ñu yegg ci ba ni bu ñu nawetee ba pare ba séddoo famille bu nekk trois cent mille francs ngay am trois cent mille francs bu ñu la nee mën na téye nit douze mois ça veut dire que dafay fekk mu takk biiram dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg renoncer à beaucoup de choses pour mën di dundee trois cent mille pendant neuf mois douze mois on peut dire parce que trois mois yi nga xamante ni dañ koy bay aussi dañuy dund pour bay donc douze mois on peut dire alors loolu jàpp ma metti ma sama xol trop mais ci laajte yi ngay laajte les villages environnants ay Kibik ay Kunchak ay Jilaax ak yeneen petit village yi nekk foofu soo leen laajee ils te disent que ni ñun fii nga xamante ni moo dend ak plan REVA àll la woon maanaam kenn mësu fi bay àll la woon et liy dëggal wax ji tout récemment les jeunes de Ndingler def nañ benn marche benn manifestation bi ñu defee manifestation bi parmi les intervenants ci jeunes jilaax yi ce sont les jeunes di jilaax ñi nga xamante ni ils sont pas pour ce projet de Babacar Ngom ils sont contre ce projet ils ont fait une manifestation le lundi je pense ou le dimanche si je me trompe pas parce que seetaan naa ko ci benn site internet il y a parmi eux le deuxième intervenant c'est un jeune qui a textuellement et loolu je renvoie les internautes à ce que ñu dem seeti ko ki a dit que ñun de forêt bi nga xamante ni moo nekkoon fii sax moo ñu gënaloon parce que ci biir forêt boobu lu ñu fi mësaan soxla bu ñu demee dañ ko fay fekk et si tu consultes les archives du Sénégal tu verras li ñuy tuddee zone de gytrophase aménagée et man personnellement tey su ma doon condamné damay condamner état du Sénégal parce que gytrophase dafa nekk benn plante bio boo xamante ni huile am tey liñ ci mën di def da ngay dem dans les autres pays dans les économies dañuy tas saxal gytrophase boobu dañ koy saxal uniquement pour di ci def di ci extraire bio parce que dañ koy utiliser dem na ba ci ñu mën ko utiliser pour que mu nekk en matière première pour la fourniture d'énergie alors man bi ma dégloo les parties yëpp ñi nga xamante ni ñoom la ñu concerné je me suis dit moi ce problème là c'est un problème boo xamante ni si on le règle pas aussitôt on aura un sérieux problème boo xamante ni le monde rural en général ça va leur servir d'exemple. Si le cas de Nengler marche, si on arrive à trouver un compromis entre le promoteur et les deux villages concernés, ça peut aider le reste du monde rural à ce que nous savons seeni suuf buñ koy joxéti dañ koy joxé dans un élan de partenariat gagnant-gagnant. Ça veut dire que toi tu as les finances, moi j'ai les terres. tu amènes tes finances j'amène les terres ñu ànd liggéey suqali suñu gox parce que tey ni jeunes yi dawee monde rural ñu koy wax exode rural ñëw fii ci réewum taax di fi def marchand ambulant di fi def charretier di fi def pousse-pousse di fi def madame porte ci marché yi si on les encadre bien. boo xamante ni li ci mën a génne mën na sax. développé réew waxuma la gox. donc bu ñu euh, comprendre bu baax li nga xamante ni moom nga tënkee euh, problème bi mooy que ni nañu encadrer jeunes yi former leen pour un partenariat gagnant-gagnant ci milieu boobu nga xamante ni nii euh, ñoo ñoo ñoo seq forêt bi nga xamante ni nii moom moo nekk objet de litige foncier bi. mais avant foofu sax c'est-à-dire dama développé gul avant foofu man ça c'était loolu moo doon suma option man. bi ma dégloo lépp ñi nga xamante ni ñoo nekk dans cette zone je me suis dit que ni suñu bàyyee promoteur bi mu génn dans cette affaire il y aura un conflit entre deux villages Djilakh et Ndingler donc on dise que c'est le promoteur qui a alimenté les jeunes du village de Djilakh ou quelques partie des jeunes du village de Djilakh pour que ñu d'accord ci projet bi D'autres disent que ce sont les partis de l'opposition qui ont alimenté les jeunes de Nengalère parce qu'il y a quelqu'un qui a des intérêts politiques là-dessus. Moi, je n'entre pas dans cette considération. Man li nga xamante ni moo ma soxloon mooy comment faire de sorte à ce que ces villageois puissent sortir de cette précarité et de cette vie de pauvre bi nga xamante ni moom la ñuy mën Je me suis dit que la seule et unique solution dans ce cas de figure, c'est d'essayer de mettre en place benn cellule de consensus boo xamante ni dafay dox pour pacifier lii nga xamante ni moom la ñuy tuddee problème parce que en réalité soo ko xoolee ba ci biir mu amul problème parce que ce sont tous des Sénégalais et tous sous l'autorité de l'État du Sénégal Donc s'il n'y a que l'État qui doit sortir de son mutisme, prendre ce problème en main et essayer de trouver des solutions pour les trois parties. C'est en ce sens que je suis allé voir des autorités. Et je les ai dit, bien écoutez, ce problème de Nengler-là que vous laissez, que tout le monde en parle, qu'il y a une société civile qui en parle, il y a des hommes politiques qui en parlent. Mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, en tant que qu'État, de venir, d'écouter les partis et d'essayer de solutionner ce problème avant que ça dégénère. Parce que lii ma gis du jëm ci jàmm sous État Les autorités m'ont occupé. Ils ont dépêché des ministres. ñu jóg dem fa. Bi ñu fa demee ñu déglu ñaari parti yépp. Ba tay demb ci goudi, vous avez vu que le ministre de l'Intérieur avec le ministre de l'Urbanisme bi nga xamante ni moo commencé won waxtaan yi ñu ngi woon foofu ba vingt deux heures vingt trois heures voire pour essayer de trouver une solution parce que quoi qu'on puisse diir yëkkati population yi pour que ñu gàddu yàq dem dugg ci tool boo xamante ni gendarmerie moo koy garder ñu jàpp leen yóbbu kaso wala ñu jàpp leen dóor est-ce que loolu mooy solution est-ce que solution bi mooy que ni da ngeen war a jóg xeex. est-ce que solution bi mooy que ni dañu war a bàyyi waa Jilaax xeex ak waa Ndingler est-ce que solution bi mooy dañu a bàyyi waa Ndingler xeex ak waa Sedima est-ce que solution bi du teg ñetti parti yëpp ñu toog kenn ku ci nekk ni mankat lii laa jàppoon mais lii mën naa ko bàyyi keneen ki ni man lii laa jàppoon man lii mën naa ko bàyyi suñu defee noonu ba nga xamante ni kenn ku ci nekk bàyyi nga as tuut fekki sa morom mais jàmm ñu nu ñëw su jàmm amee je pense que ça sera bénéfique pour ñi nga xamante ni ñooy population lii mooy sama position après avoir écouté toutes les parties concernées maintenant su fekkee ni nag doxal jàmm waxal jàmm mooy changer de posture alors là d'accord naa ni kon changer naa posture yaakaar naa ni leeral yi am na solo waaye dafa beneen question bi nga xamante ne moom moo ñuy interpellé euh, wax nga ko mooy que ni dem nga sur le terrain étudier nga wala boog déglu nga camp yëpp yi nga xamante ne nii ñoom la ñu teg comme argument que ça soit askan wi yeewoo ci euh, jilaax ak Ndingler waaye itam euh, propos yi nga xamante ne moom la président wu Sedima Babacar Ngom yëkkati tamit ci kàddu ci ci boobu boobule moom it am na lu waxoon loo xamante ne nii xëy na nekk na tamit beneen questionnement mooy que ni. entame euh, entame mu jëngoon woon entamé ay pourparlers pour xool naka ngeen di régler situation bi mais à chaque fois dafa am ñoo xamante ne nii peut-être ils sont mal intentionnés ñooy ñëw di yàqaat mbir mi ndax loolu noonu euh, c'est avéré waaw wala déet parce que am na ñu dem sax ba naan ay politiciens euh, ñu ngi ci ci suuf di di di di dox ay tànk pour pour yàq li nga xamante ne ni moom ngeen jot a négocier ak waa population Djilakh ak Ndingler. bon pour juste euh, leeral aussi une chose ba fii may toog di wax ak yow Babacar Ngom musul toog ma toog et ça justifie quiconque bu ngeen paree mun ngeen jóg yéen ngeen dem vous allez essayer d'entrer en contact avec lui vous lui demandez ma toog Babacar Ngom toog la première fois que j'ai vu Babacar Ngom c'est lors de son de sa prise de parole et li ma fa yóbbu woon c'était pour lui poser juste deux questions j'y suis allé, j'ai posé mes deux questions. Et tilt, ça a fait aussi, au lieu que les gens s'intéressent de ce que Baba Karma a dit, mais ils se sont rués sur Soya Diagne avec un degré de. Euh, xaw ma sax nu ma ko mën a qualifier je vais pas dire de violence parce que yooyu man sonaluma ku jàngee politique ci tendance au parti socialiste màgg ci loolu. donc ce pas des attaques personnelles euh, yu nga xamante ni dina ma dina ma déranger juste que c'est c'est c'est pas du tout c'est pas du tout rafetul daal rafetul parce que euh, nit ki nga xamante ni jóg na ci problème bu concerné des Sénégalais mu mënoon toog këram def comme ñëpp toog connecté wu suma internet di bind comme ñëpp je pouvais bien le faire maa jógal suma propre bopp maa demal suma bopp maa gisal suma bopp maa waxal suma bopp maa jógit nii damay dox pour que jàmm mën a am fii parce que su jàmm amee mooy njariñu ñëpp donc man musuma gis Babacar Ngom Sediment je communique avec eux à travers leur directeur juridique et kooku man maa ngi am ak moom contact bi ma woowee ni ma on a vu votre live sur Ndingler on aimerait apporter notre part de vérité et boobu ça concernait pas Soya Diagne mais ça concernait le Dakarois 221 qui avait diffusé le live je leur ai dit vous avez, vous en avez absolument le droit ils sont venus ils ont fait leur émission en deux heures de temps ils ont donné leur version des faits je n'ai ni commenté ni apprécié ni dit quoi que ce soit là-dessus concernant ñi nga xamante ni ñooy torpiller processus de paix les attaques dont je fais l'objet prouvent nettement que y des gens yoo xamante ni jàmm ci zone boobu taxu leen jóg et man personnellement j'en connais ñoo xamante ni j'en suis sûr que ñi jàmm taxu leen jóg du seulement les hommes politiques kese benn homme politique laa xam ni wóor na ma wóor yàlla ni politique dugalu ko ci mbir mi te jéemu ci dox politique et fu ma toog dama ko koy wax muy Bassirou Diomaye fay je sais que dans cette affaire de Ndingler li ko ci dugal du dara lu dul dret parce que Ndingler la yaayam cosaanoo donte moom mi ngi dëkk Ndiaganiao et à chaque fois xëy na suñu paree mënul ma ko wane à l'antenne je vais te montrer ci sama téléphone à chaque fois fu nga xamante ne toll naa ko ci processus bi J'échange avec lui. Il me répond. Et sa dernière réponse, c'était Soya, dans cette histoire, les villageois, c'est eux qui savent où se trouvent leurs intérêts. Donc, ñoom proposition bu leen arrangé il leur appartient à eux de donc nit ki lay wax loolu xam nga ni intérêt politique dafa ñi nga xamante ni ñoo ciy politique peut-être. dëgg rek ay mujj suñu demee ba ci kanam les gens vont savoir li nga xamante ni ñoo ciy nekk ci ginnaaw am na ci koo xamante ni c'est un ancien député am na ci koo xamante ni c'est un ancien ministre am na ci koo xamante ni chef religieux la bu ñu sañoon jàmm du am foofu lan moo ko waral nag ñoom ñoo ko xam mais man personnellement pour avoir entré en contact avec eux je sais que ni ñii jàmm bugguñu ko ci zone bi te bu ñu sañoon jàmm lu fi am la ne ca gannaaw nag ñoom ñoo ko xam donc pour répondre ak sa sa question effectivement y de des gens yoo xamante ni jàmm taxu leen a jóg parce que li koy firnde mooy ku yaakaar ni état du Sénégal dina revenir sur un décret signé attribuant un titre foncier à Sédima ku ko yaakaar da ngay nax sa bopp. mais justement est-ce que décret bi président signé waroon na koo signé dëggantaan. alors vous savez moi je très euh, mal placé pour dire que est-ce que président waroon na jël décret ou waru ko jël je sais que ni benn prérogative la président de la république am loo xamante ni état du Sénégal constitution ñun sénégalais yi ñoo boole jox ko ko muy signature signature président. doole bi mu am ak diisaay bi mu am ñun sénégalais yi ñoo ko ko jox te loolu rek signature boobu rek moo tax nit di nekk président de la république maintenant est-ce que ci anam yi mu ko jëlee jaar na yoon wala jaarul yoon je peut dire de ni ma ko comprendre que président décret bi su koy jël daf koy jël en fonction de pièces yi ñu ko présenté yan pièces lañ ko présenté pour que mu mën a jël décret ça veut dire que am na attribution de bail si la loi permet nit boo amee attribution de bail après l'avoir mis en valeur que nga demander à ce que ñu defal la ko titre foncier l'erreur monumentale dans ce pays c'est comment on peut pour des projets d'agriculture délivrer un titre foncier c'est ça l'erreur monumentale et ça ne commence pas avec seulement Sedima il une société immobilière appelée Sénéguindia. Nous tous, nous savons que c'est une société immobilière. Mais, bu nga xamante ni dafa yëngu ci wàllu mbay jox nañ ko mille hectares yoo xamante ni pour mbayum pombiteer la ñu ngi koy exploiter mais jamono ju ñu demee ba suuf soosu nangootul moom mu continuer nekk société immobilière nga yaakaar ni suuf soosu su nangootul bay du ko dagg def ko ay parcelles def ko ay dëkkuwaay loolu détournement d'objectif la y a d'autres et d'autres et d'autres am na société boo xam mi ngi fii jas ay hollandais ñoo ko moom am na benn espagnol bu nekk ci zone boobu plan Reva mi ngi noonu ci zone boobu am na ci boo demee ci vale bi ci côté walo bari na fa à Saint-Louis la même chose c'est-à-dire bàyyi quatre-vingt-dix ans suuf domaine national sa appartient à tous les Sénégalais Sénégalais bu nekk am nga droit am ci un droit d'usage droit d'usage nag bàyyi doy na ci bàyyi pour quatre-vingt-dix ans bàyyi pour cinquante ans renouvelable ñun ñi wóor nañu wóor ni du ñu dund cinquante ans du ñu dund cent ans donc su bu la ko abalee pour nga exploiter ci sa activité activité bi nga def ko pendant cinquante ans wax dëgg yàlla loo fa defoon ci investissement su activité bi nekkee activité bu rentable rek sa investissement war na dellu si waat ci yow ba nga am bénéfice loolu cinquante ans doy na ci bu cinquante ans yi jotee te fekk ni la nga def ci investissement duggagul war nañ la ko mën a renouveler jox la ko nga defaat beneen cinquante ans muy cent ans téeméeri at ku ko liggéey ci activité doy na sëkk ak barke pour que mu war a rentable mais droit d'usage mooy loolu droit d'usage mooy suuf domaine national sénégalais yëpp ko moom bu benn sénégalais amee un projet fiable étant aussi projet boo xamante ni sénégalais yëpp dinañ ci gis seen bopp wala yenn ci sénégalais yi mën nañ ci gis seen bopp ñu abal la suuf si nga exploité ko mais droit de propriété si domaine national moo dul dëgg moo dul yoon parce que droit de propriété soo ko defee rek maanaam jël nga lu sénégalais yëpp bokk nga jagleel ko benn nit mu doon moomeelam benn nit avec ses héritiers te loolu lañ ni moom mooy li nga xamante ni war nañ ko rectifier éventuellement je vais me dire que le président de la république a eu à benn commission boo xamante ni moo ko doon lijjantil problème mu foncier ñu njëkkoon ko dénk ki nga xamante ni mooy maître Doundoy ancien ministre wëlbati ku dénk ko ki nga xamante ni mooy professeur Souran mais jusqu'à présent on n'arrive pas à savoir le contenu exactement ou bien li nga xamante ni moom mooy les mesures yi nga xamante ni président jël na ko pour que on règle ce problème foncier définitivement parce que ce qui est sûr et certain mooy que ni ce problème si on ne le règle pas tôt ou tard ça va être source de conflit ça c'est sûr parce que monde rural bi fii ba Casamance fi dem sama suufas maam suufas état problème la les gens yi nga xamante ni ñoo nekk les fonctionnaires yi nekk dans l'administration qu'est-ce qu'ils te disent bàyyil ñu defal la kayit jox la ko après nga gérer ak population yi mais nga gérer ak population boobu mun na jur lu ne parce que population bi fi mu toog di ko bay doon ko ci maamam doon ko ci baayam di fa bay yaakaar na ni moo moomeelam la alors que état du Sénégal depuis 1964 jël na suuf sépp def ko domaine national maanaam sénégalais yëpp ci yam suuf maam amatul sénégalais yëpp ci yam donc loolu si on le règle pas de manière définitive claire et nette mu leer ci bopp sénégalais yëpp que ni suufu Sénégal fu mu mënti nekk sur les cent quatre vingt seize mille kilomètres carrés sénégalais yëpp ko bokk da ngay dem jaar ci yoon bi nga war a jaar état du Sénégal jox la suuf ñu war a tamit déterminer les activités yi nga xamante ni mooy war a mën a tax ñu fell ci suuf soosu jox la ko mu nekk un droit de propriété au lieu d'un droit d'usage